pour mu nekk ab lal pour mu nekk ab jumtukaay pour ñu mën a xayma niveau de représentativité candidat yi puisque parrainage bi loolu mooy jëmukaayam te caution bi loolu mooy jëmukaayam yàlla def code électoral bi ci ni mu tëralee organisation élection yi mu may ñu laata ñuy dem ci élection yooyu ñu mën a daje waxtaan ci caution bi ñu ne nañu profitoo ci occasion boobu fexe yóbbu caution bi ci montant boo xam ne dina woyof lool ci parti politique yi parce que ko xam parrainage gis li parrainage bi jour ci élection présidentielle bi passé da ngay gis ne mbir la bo xamné ne dafa laaj euh, organisation bu am doole waaye dafa laaj aussi ay moyens ci walu finance motax ñu né mbir mi nañ ko yobbu ba juroomi million ñu yaakar nak ne euh, li nga xamné euh, moy suñu position te mu position bo xamné ne boo ñi fi jotta jël cadeau moy position bi ëpp ci ci position yi manam mo ci ëpp ay voix yaakar nañ ne kat ministre de l'intérieur du ñu def bii yoon lam ñu defoon euh, ba ñu dajee pour waxtaan ci position élection locale yi parce que keroog bañ fi dajee euh, joxe nañ suñu position waaye li ñu nemmeeku ca njeexintal ba mooy moom ba mu waree jël ndogalam euh, dafa jël dafa jël dafa def rek li nga xam ne moom moo ko neex ñu yaakaar tey ne 5 millions yi nga xam ne moom lu opposition proposé te mu bëri ay forces politiques yoo xam ne fekk nañ ko ci jiital argument yi opposition bi jiital maanaam mooy fexe ba. wut équilibre entre parrainage bi ak caution bi que moom bu demee bay jël arrêté bi dina ci baye xel bu baax a ñun dañu japp né euh comme ni ko code électoral bi ni ko santané tay ministre bi daf ñoo dajalé pour déglu formation politique pour que ñu joxé sen xalaat ci bala muy jël dogal lolu nak ñun am nañ ci xalaat japp né ay élection législative buñu jappé ci yu weesu rek en 2017, election 17 élection de parrainage mu amoon plus de 47 listes nit ñi di ko ñaawlu ci diggante bi le gouvernement a jël dogal parrainage Nous kenn ku ci ànd pour un calcul politique diggante bi aussi Le dogal gouvernement Sénégal pour que nous mu dindi parrainage donc ñu jàpp ne nag boo boolee ñaar yooyu ñun war naa mën a tax ñun ñu ne donc euh, Sénégal kat warta def loo xam ne amul fenn ci àdduna bi mooy def ñaari filtre ñaari filtre benn ci bi beneen bi ci kii bi beneen bi ci parrainage kon nag ñun jàpp nañ ne bu ñu dindee parenage bi jaadu na ñu yëkkati ko sax ba 30 millions parce que comme 15 millions lañ ko defoon ñu am plus de 47 listes kon nag jaadu na tey bu ñu dindee parrainage parce que parrainage bi jaaduwul ñun ñëpp ñoo ci d'accord beneen bi mooy euh, CEDEAO aussi sant nañu pour que ñu dindi ko loolu daal moom mooy ñun suñu position. teewoon nañ fi tey ci waxtaan wi nga xamante ni moo ñu dajale solos waxtaan wi leeral naa ko léegi mooy euh, ni ñu ko code électoral bi santé dajale mbooleem ñuy yëngu ci langue politique bi moo xam dañu bokk ci coalition moo xam dañu bokk ci parti wala dañu bëgg demal seen bopp ci ay jongante déglu leen taataan seen xalaat ci li jëm ci wàllu caution bi ñaata lañ ko ñaata lañ ko war a fixé laata ñuy dem ci élection yi te loolu code bi dafa wax ni euh, gën gaa sori téeméeri fan ak juróom fukk laata ñuy yegg ci élection yi nañu wax ñaata la waxtaan wi nag dafa lalu ci ñaari mbir bi ko reu, mooy suñu réew xam nañ ko réew la bu yàgg diisoo réew la bu di waxtaan rawatina ñi nga xamante ñoo seq langue politique bi ci suñu cosaan ak ci suñu histoire déggoon nañ fi sax code consensuel laata code consensuel bi bu ñuy dem ci jongante wala bu ñu nekkee ci langue politique gi nit ñi mën nañoo bañ a bokk xalaat te loolu la ñuy xaar sax ci waxtaan woo xamante ni dafay am jëm ci lépp lu soxal réew mi waaye saa yu waxtu jotee ngir ñu toog sottante xalaat bala ñuy jël décision saa su nekk dañ ko mës a def fii ci biir réew mi kon li nga xamante ni ci la lalu mooy waxtaan yu bi ci njëkk mooy loolu nga xam ni dafa bokk ci suñu cosaan mooy toog di diisoo ak di waxtaan ci lépp lu soxal réew mi ñaareel bi nga xamante ni ñaareelu poñ bi nga xamante ni si la tegu moy loi bi moñu ko sas muy article L 175 ak R 80 bu code électoral damay rafetlu nak di jaajëfal ñi fi jël kàddu ñep ak bép position buñu mëna am ndaxte bi ñu jëlee kàddu teg nañ ko ci xalaat bu rafet ku ci nekk wax nga li nga xalaat ni mom lañu wara fixer caution bi comme montant te génne nga ay argument yoo xamante ni argument yu leer la tegu na tamit ci li nga xalaat li nga yaakaar ni buñ ko defee dina jëmale ni ñuy doxalee élection ca kanam ñi nga xam ni tamit moom nga représenté fii wax nga lu tax ñu yaakaar ni buñ ko defee noonu mooy li nga xamante ni mooy gën ci réew mi loolu yépp nag richesse la ndax euh, diversité wu idée duñ ko jàppee lenn lu dul richesse du opposition digante ay position au contraire lo xamante le la dafay gën a rafetal suñu nekkine ci réew mi ci démocratie ndax diversité bogis, gis jape ko réunir luy wàññi waaye dang koy jappé luy yok ma bëgg ci vous rafetlu ko rendez-vous bi nga am nañ ko bu ci yalla andé moy dinañ dogal bi nga moy ci li nga que vous maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam